asalaamaaleykum mbokk ak xarit ñu saan suñu émission homme politique ci Thiès une fois que Thiès TV ñuy dalal Mamadou Ndiaye nekk analyste politique fii ci biir euh, Thiès waaye tamit euh, fara rek euh, ci parti au pouvoir maanaam di APR di Alliance pour la République li ni mel tey dañuy bàyyi rek Mamadou mu nuyoo ak mbokk ak xarit ñu seetaan ci Thiès Info ak Thiès TV. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen sunu mbokk yi nga xamante ni bi yéenay seetaan Thiès Info ak Thiès maa ngi leen di nuyu di leen sant di ñaan. li nga xamanteni ni ñoo koy waji fekk leen si jamm ak salam ñi nekk si biir réew mi ak ñi nekk ci bitim réew yëpp ñoo ngi nuyu di leen sant di leen bëro di profito tim di leen sant ci wéru tedd bi nga xamanteni bi bii moom la dugg te bis bi tedd bi nga xamanteni suratul muy mawlidu nabi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamanteni bi si la moo leeral bi euh, jare njariñal aduna bi si la ak euh, fa nga xamanteni fa lañ jëm tim di si ndokkel julit yépp yépp yi nga xamanteni bi yoo nekk Sénégal di leen wax ahlan wa sahlan wa kullu aamin wa antum bi xayrin macha allah mu nekk ay kàddu yam solo alors euh, ci li mel la ñuy jógee est-ce que tey président Macky Sall ginnaaw màggal Touba ba ci gàmmu bi euh, tey kàddu yi nga xam ne yëkkati nañu ko fii waaye it euh, ak génn àddina Cheikh Bou Mouhamed Kounta yàlla yàlla yokk leeram tax ci barkeem li ni mel Mamadou naka ngeen di jàngatee déclaration yi nga xam ne xalif yi jot nañu ko def ci Macky Sall. waaw kaaw kooku sooñ su laajee dinañ si kontaan bu baax euh, pour ma lay sa toobaa nga may ma rek 30 euh, secondes ma def benn euh, kii bala ma tontu ko muy di féliciter encore président de la république parce que yàlla tombé na émission bu ñu mujjee def si weer yi passé daa tombé mu defoon si tournée économique bi la tàmbali woon mhm. Ziguinchor te bi ñu koy defee nii itam mi fi ne actuellement nii mi ngi Kédougou mhm. kon loolu yàlla li wax naan du hasard commune bi nga xam ne moo gën a ngand ci Sénégal mi Fongolimine mhm. Issainaba loo xamante ni bi demande naan la demande nationale la woon ou bien mhm. internationale mhm. président da ko réaliser muy pont bi nga xamante ni mooy lii entre Pongolimbi ak Kédougou. defar na ko ba pare ba inauguré dina ko dina ko inauguré bala bala mu fay jógee. kon mu nekk loo xamante ne bii gis nga yomb na trop nga toog nga toog biir Thiès génnoo ou bien nga toog biir Dakar génnoo naan Sénégal waaye ñiy génn xool at mi xool Sénégal gépp xam ne président moom di liggéey lu am solo kooku liggéey boobu lu am solo di ko wax tournée économique bi moom ñi nga xam ne bi ñi ngi leen di fekk si ñoom gis nañ seen bopp bu baax na ko gënee comme na ma depuis bañ joté suñu bopp ba légui dina fexé mom ba foofu fu drapeau bi folote jot walam ci Sénégal kon président voix bi nga jël baxna diko ko wax di kon euh, di tort pour tontu na sa question di sant bu baax di wax alhamdoulillah rabil alamin ndax li nga xamanteni bi moy fa lañ joggé ba ñoo ñu ci gam ko magal comme ni ko waxé non nak magal gi nga xamanteni ni la joggé bi magal Touba bi nga xamanteni bi bii sëñ bu mag bi sëriñ Touba bi muy génn dem di liggéey nga xam li gëna jafé la def mom mom lay mm, santé suñu borom waaye ki nga xam te ne mooy sëñ Tuubaa di numéro un des mourides di personne morale bi discours bi mu def dafa ñoo doy ndax discours la boo xamante ne bii alhamdulilahi rabil alamin la comme la ko waxee tey bokk na si muy loo xamante ni bii tey yaakaar naa képp koo xamante ni bii dëkk nga diggante Ndakaaru ba Touba ku fi jaar ñi nga xam ne war jaaree nañ foofu gis nañ seen bopp mooy Ila Touba bi nga xamante ne bii président ñu bari dañu na ko mu nekk réalité ki ko fi tegoon bi Serigne Sidi Al Mokhtar yàlla def na tey incha allah kii tey la fekk mu sëñ Mountakha yàlla na yàlla dimbali ñu te ba mu yegg seeg jàmm ak sala ba mu inauguré ko officiellement ba mu dama gën a yàggatim la ko wax doy na mooy nee na ko xolam dafa sedd ba mu ne ko lii nga def nii de sëriñ Tuubaa laa lay bàyyil te mooy personne képp kuy mën a wax ak muy mën ak murid laa keneen ak keneen ne del sëñ Mountakha moom mooy sëñ Tuubaa kon li mu wax moom moom mooy mooy moom la Tuubaa wax ak koo mën a doon it moom la sëñ Mountakha wax moom la Tuubaa wax moom mooy sëñ Tuubaa benn bàyyi naa la sëñ Tuubaa boobu na mu jekk benn jàngat boo xam te ne bi damaa gis que ni sëñ Moussa Naayol da tekki ndax ba ka ma ci seetee ba ba mu defee kii ba pare bi di wër noonu ba mu demee këram dani ko dégg naa li sëriñ bi wax waaye ginnaaw yàlla tey loo amul ci yow la ni ko nag ñeenti sëñ Tuubaa ku nekk wax ko ñetti président yi la ñett euh, euh, ñetti sëñ Tuubaa ku nekk wax na la ko wax nga ko ñetti président yi la jiital yi la jiitu yow ak moom mii muy lan Senghor waxoon na ko sopla euh, sëñ Fall waxoon na ko président Senghor Serigne Abdou Hadj waxoon ko président Abdou Diouf Serigne Sali waxoon ko président Abdoulaye Wade kon tay bu lako Serigne Moutakha waxee lo amul ci yow moy japp ngeen dal deuxième mandat bi nga xam mo upp bopam soti wa inshallah allah taala xam nga loolu moom daa maay lepp deuxième mandat ba PSE bi nga xam mo gi lepp tay pour mu réussir ginnaaw yalla président de la république bu déssé ci mom la déss jeex deuxième mandat ak PSE lepp la wax pour Sénégal gëna émerger dem loolu la ginnaaw yàlla bu desee bu antul si ne incha allah dina ko loolu lu muy dox la beneen bi si des euh, ma eggale pour pour pour ne foofu rek te xam ne euh, foyer religieux yi nga wax mm. mooy Tiwaawan barki dem la fa jóge dégg nga la xalifa boo wax mm. kontaan nañu bég nañu mu yóbbaale xalif généraux yëpp ndax Tiwaawan la mu def ñetti at a ngi nii ku dugg Tiwaawan di nga ko gis hmm? ah? maison des autres yi nga xamanteni bi ma nga fa tay loolu manké won teewoon na seigne abdou mu bax ma da ko don wax da ko don wax ndax seigne abdou man mom ñepp non da leen sénégal gépp moom dañoo kontaanoon ci mom ndax mom li manké teewoon da koy wax li bëgg teewoon da ko don wax bi ko waxé dégg na no dëgg na suñu président président def nako tay seigne ki fi nek ni yalla fi yàgg téewér muy seigne Mbaye Sy Mansour euh seigne Babacar bi nga xamanteni moy seigne Babacar Mansour mom tam yalla fi yàgg téewér gis nga lim ko waxé kontaan na ca loolu mo joggé fa dugg ñassane di bëri téléphone di jaale xalifa ba nga xam te ne moo fi jógee yal na yàlla yokk ay leeram ki fi nekk itam yàlla ko yàlla dëgëral waaye moom it gis nga la ma wax sëñ bi la ma wax président de la république euh, kontaan na ba ko li ma la li ma lay wax moom da ngay dugg si néeg ñu tëj may wax ngay dégg lu ma wax nga jaaraat sax kon loolu xol bu sedd ak li nga xamante ni bii defal na ko fu waaye religieux yi moo fa ne te président wax na fa boobu tam bientôt dinañ inauguré bu laayeen Ndiassane bu jógee Kédougou jaar ka Palais jaar Kaolack Ndiassane Ndiassane yi Palais jaar ñeneen ñi amul ñi ngi ñi ngi si te ñëpp insha allah taala dana fi egg dina daj loolu tim ñu sante ko Sénégal nda ëllu tasawuf bi nga xamante ne bi ñoo fondé Sénégal muy mag ñi bi nga xamante ne bi suñu borom da koo séddale réew mi ginnaaw yàlla ñoo liggéey loolu hmm. président bu demee ba mën a réussir PSE bi loolu la hmm. nda ëllu tasawuf bi bi dem Sénégal xam nga réew mu ne dafa am lu fa yàlla yi def hmm. Sénégal nag sëriñ si la ko yàlla booleel sëriñ si nga xam ne sëriñ si ji gis nga bi ñu fi nekkee colon bi ñi nga xam te ne bi nekku ci yor si beneen diine tim colon bi mu dikkee si diine boobu la nekkoon gis nga lañ lañ lañ waaye ñi nga xam te ni bi daal euh, suñu borom dimbali na leen lañ ko ñaan nangu na ko defal na ko moo téye Sénégal Sénégal moom day réew moo xam ne mag ñi boobu ñu ko xale yi na leer na leer si Sénégal yëpp mag ñi duñu bawee réew mi xale yi te boobu ñu ko xale yi moo tax it président bu fi nekkit da leen di dégg rek nangul mag ñi incha allah taala yalla seetool lépp kii fi nek nak mom yalla def nañu farak mom am ci mom yakar alors euh, très bien mu nek rek euh, toujours ci cadre religieux bi euh, bu ñuy wax bëri ay doomu Thiès yi nga xam dañu jël sen loxo def ci sen poche genn rek jàppale yenn cérémonie religieuse yi am wala jàppale foi religieux yi yi gëna a gis nañ fi ñom Babacar Fall wala ñom Ablaye Dieye mais également Mor bu sop nabi Sénégal sallallahu alayhi wa sallam ndax wa sallam émission encore mhm. yow ak Omar Dem ak euh, borom ba na de Info mhm. chaque jour mi ngi def burdu ñëwuma sa nag waaye maa ngi suivre moom chaque jour mi ngi def burdu mu nekk loo xamante di si woo jullit ñee ñëpp ne fa tijaan a nga fa mu nekk loo xamante ne bii euh, di si remercier tamit Tiwaawan xalif bi nga xamante ne bi dafa décentralisé burdu bi ba Sénégal gépp ñu ko fay defee mm-hmm. kon moor mu nekk loo xamante ne mi ngi liggéey lu am solo parce que loolu benn social la malgré diine la sopp na bi rek sallallahu alayhi wa sallam ko kuy jullit moom mm-hmm. bu defee bu sopp na bi ñam ko seqal te ay sëriñ nekk si ay doomi soxna nekk si jiital ko si moom mu jiite ko si bu màggal dikkee gis naa la màggal ga la mu nangami million la mu defoon jëndi nag ànd ak Babacar Fall dem kër Babacar Fall ziare ko lu am solo gis nañ ko seetaan naa loolu Thiès boobu moo rit comme li ma la wax noonu it xamante nañu waaye miinante wuñu duggante wuñu maa ngi moom hmm. mais maa ngi si bu baax li muy def hmm. kon loolu nekk la lu am solo benn bis des moom gàmmu ñëw mu jënd plus de centaines de bœuf séddale ko si kooku social la boo xam ne bi yàlla na ko yàlla fay loolu mu defal julit yi benn ñaareel bi si di pour profité nag encore di wax ni ku melni ni Mor Gueye dañ ko soxla ñu si suñu côté ci ben côté biñ ñu ko defee mooy politigul nak ndax social lay def fop na bi mom ñepp ngi ci biir waye ñun may man ma bëgg man président de la république comme nama ko waxoon ci président Ablaye djey bi nga xamanteni bi bii dina ñëw ci mom après waye pour dëggal fi lay wax na jëma xol nan lay gisé ku melni ni Mor Gueye mii nga xamanteni mi ngi liggéey social tang am nañu fari fa ko nekkal mu jëma xol xool nan la mëna andé ànd ak moom ndax yaakaar nañ su andé ak moom dina ko gëna dorel ci biir département alors très bien mu mel euh, na ay am solo bu wax nous euh, euh, sommes nga nous sommes ñu ngi sommes mu nous Mamadou là, nous sommes Lamine Diallo aussi maire sommes là, Nord sommes là, nous sommes là, donc mais Mamadou nous <coughs> bu là, wax ci situation bi sommes nga gis sommes là, li nga toujours dañ dans le cadre social parce que dans sommes fi gis ay nit di def ay loxoor ci ay terrains, di dugg di nous nous pour mu jàppale leen ci ay dëkkuwaay li ni mel moor ne na doxuma ci pour koppar wala pour dara waaye dama koy def ngir social parce que ay jàmbaar son euh, sonn. waaw da nga da nga dëggal fi ba daanelee léegi parce que soo gisee kon amayas bi nga xam te wax naa ko président pour mu gën koo kii. kon loolu dala euh, dëggal na li nga mujjee wax nii mooy suñu demee tey ba nga xam te ni ñu nekk si diaspora bi ñoom ñoo def seen choix si morgue yi pour mu jappalé ni ñu ami ay kër nga xamna da problème terrain dafa doy war dafa litis bi dafa doy war ndax Dakar deux gis nga lañ fa xew def seen i million tabax ba paré ba yakar na am nañ kër amuñu dara dakare suufu jampu ñu ko tabax lolu doy na waar suñ demee nag toog ba jangar kan ñoo duñu bëgg ko xamanteni bi dañ leen di tabaxal ñoo xam dañ am source légal ñu am kër yu wóor nañ te def nañ choix ci mort kon dañu gëna santat yalla yàlla ba moor di cey ties di def social te yalla def na nak di ties waatim kon dinañ santat yalla ku melni mort lolu gëna gën la kon lañ ko wax ni ko euh ñun ño wara ñew vers pour mu gën ñoo dolel lol tim gën na digeural lol ko ni mom loxom setna loxom setna na loxom worna ci benen patch bi ci walu politique bu ñuy wax mam adama gey mi nga xam dafa dem sax lëkkaloo ak Thierno Alassane Sall ci candidature bi nga xamante rek bëgg na jiite réewum euh, Sénégal mu ngi mettre en cause li nga xam rek moy fichier électoral bi wa mettre mam adama gey mom man lima gis moy moom wëratu la wax wala muy génne def parce que mom segam li wax la wax man dama sax rus parce que maître Mamadou Gueye bu nag bu mu nax sénégalais yi te mënu leen a nax ñaata la nekk candidat élection def na élection présidentielle def na élection locale def na élection lan la am 0,1 amoo su am pour cent maître Mamadou Gueye ñi nga xam ne sénégalais yi xam nañu kan ma lima li ma ko ruus li ma ruus li ma ruus naa si moom mooy problème visé bi muy wax boo déggee ni wax sa nga xam ne kii maîtriser wul warut a nekk sax moom candidat waxuma la bay nekk leneen ñaar nag dinaa la wax benn dinaa la wax benn door laa indi jeu bi muy def benn mooy bu dikkee naan date sangam ñi nga xamante ne bii woote am na seen carte électeur gé seen carte gerte génn te am na carte électeur loolu lu ñu topp lay doon mais xamul xew xamul si bi dara. mais fii li may wax ni su képp koo xamante ne bii yor nga parti nag laa wax. moo xam réew mi la ndax man fa ma sant commission ba ma nekkoon waa réew mi nga fa woon PDS fa woon bokk gis-gis ma nga fa woon pire sax ñoo nga fa woon kon xam nañ li xew benn commission yi daa am 6 mois bi ñu ko tijjee lañ ko liggéey mais 6 mois bi jeex na bu jeexee kenn mënatoo la am ñëpp a si am égal dignité la. kenn mënatul am carte électeur ku mën am bo boo waté carte d'identité nga am am carte électeur bisuma yi jéxé ñuy dem ba février hein ñu défat révision révision yi sax daa tardé bi yoon parce que en hein, comment dans un février la tàmbali mais ñoo ko def mars ak avril léegi def nañ ko mars ak avril deux mois yi révision yi bu jéxé mais c'est pareil jeexaat na keneen ku bëgg carte d'identité police ngay dem police mom yoonam nekkul carte électeur na leer parce que carte électeur fii problème fii la politiciens yi ñoo koy lijjanti ñoo commission lay doon comme li ma la waxoon rek parce que man man commune ba ma nekk maa fa représenté woon benn bokk yaakaar mag soxna Dieng Gueye ma koy nuyu de passage. Hmm? kon ñun xam nañ li ñuy li ñuy wax mais maître Mame Gueye bu waxee di wax li kii da ngay da ngay xam ne kii xamul si li gàll gi réer sax xamu ko. Hmm. kon moom il n'est pas capable d'être sax un candidat waxantuma laag naan day nekk day jiite dara nan dem toogi ne leen man rusloo na ma man. benn ñaareel ba si des mooy problème parrainage parce que Macky Sall dafa sécuriser réew mi ah. parce que ñoom si ginnaaw à part bi ñu jógee si élection euh, élection législative mais lan leen doon wax. parti politique yi bari na Sénégalais yi 47 liste moo amoon mais Macky Sall mënu ko woon euh, du moom moo ko mel mooy toog def. mais ñu bëri nañu 47 liste yi genn wàll gi Macky Sall moo ko parrainé woon. waaw dinaa tontu si loolu su ma baal ma bëgg a wax li ma war dinaa ñëw doon tontu si li nga ma jox léegi suñu ñëwee léegi 47 liste am na 47 liste am Sénégal ñaata yow boo duggee war a liita ñaata minute ñaata ñaata euh, minute lay jël pour nga pour nga voté léegi pour ñu régler loolu la moom ko ma def muy parrainage parrainage boobu Sénégalais Macky Sall moom en tant que candidat ak ñëpp a si yem demal bu la Sénégalais wóoloo jox la ni la mën nga nekk candidat waaye léegi moom xam naa ni moom segam koo xam te ne mënut woon am 0,1 pour cent moom doomu pare na léegi mu génn jouer le jeu léegi naa la jéem a créer benn affaire fu mu jëm lijjantee journaliste am xëy na am am na moyen bu demee nii da nga ne lan lan ne li mu nekk ku ko ko fal ku ko ko fal loolu mën naa ko mën mii di dinaa wut sax ma nit ku ma financé ma def loolu wuti ay rajo topp ma ki wut samay oto ak samay journaliste topp ma fu mu dem wax ma dem ba wax mooy lan loolu du day dara loolu du dara na def doo gi ne bu demee tey do ma ngi nuyu sama xarit boobu sama grand Thierno Alassane Sall si ñun la nekkoon comme ni ko gisee tëdd waxee vraiment di ko nuyu moom itam si ñun la nekkoon waaye seen ànd boobu daal moom xam nga la àndu naxaate la àndu parce que Thierno si boppam mais Thierno ñu ngi wax ni c'est une personne de mooy mouvement euh, euh, république des <laughs> valeurs Thierno nekk dëgg Thierno xam naa ko wax dëgg yàlla de bi njëkkee APR bi man respect lañu seqante moom en vrai dire man ak moom respect lañu seqante jàmm ak nekkoon nekkoon ne ñoo ne ñoo euh, euh, ñoo ñoo euh, defee ak ñaata jour lañ fa defee ak lépp fa defee ak électoral lim am lépp xam naa ko. ma kon Mamadou yéen yéen kon da di jox ay jéego xëy na pour indiwaat Thierno. ci APR jox jéego dox jéego pour indiwaat Thierno ci APR. mënatul na de. politique par exemple daan na ko wax kenn du ko si politique. ci politique waaw politique kenn du wax jamais. mais actuellement ni doxaguñ si mais mën naa ne man dama lay waxee li xewte parce que du bëgguma waxee tamit comme ni nga ma laajee rek ma tontu la ni nga ma laajee déedéet doxaguñ si waaye li may wax si Thierno daal moom si boppam na toog tranquille euh, liggéey ak conscience am parce que dafa bokk suñu moom Thierno Alassane la bokk benn liggéey si lu am solo xeex si def si lu parce que li nga xamanteni bi moy autoroute de la Touba bi kan moo kan, kan mako sey mhm. parce que tierno amna man comment dire encore amna ben manifestation bo xamne organiser organise ko mur 3 parce que ay ay ay femme yu mako don jox fofu mais dafa am ben mérite bo xamanteni bi dako da pour Thiès kon tay bu mu dem ba genn ba ko yak mu tane parce que président Abdoulaye Wade dafa génne woon Thiès si catégorie bi Sénégal parce que Diamniadio bi aéroport bi après Mbour la won mhm. Thiès dara du won fi dugg mais Thierno bi mu nekk infrastructure moo dem waxtaan ak président de la république bi ñu bi président dikkee ni tey teg Ila Touba bi ñu dugal ko xëcc ko problème yooyu ñëw. mu daal kon Thierno bu ñëwee loolu dox loolu moom en tant que ministre loolu baax na tey mu génn moom dara baaxatul loolu nu mën a nekkee yow boo si nekkee baax na comme ni ko euh, ministre Augustin mu sant bu baax euh, Mimi Touré bi nga xamante ne bii mooy coordinateur euh, mooy bi nga xamante ne bii moo géré parrainage bi moom la président Jafa pôle parrainage national mu jiite ko ndax keroog bi mu ñëwee fii si plate euh, coordinatrice bi bi mu jógee fii keroog euh, si pôle euh, si pôle diisoo bi pôle parrainage bi mu ñëwee si conférence diisoo bi dafa wax dafa defal moom solo acte la si jeune man acte bi ñu def moom solo mooy bi ñu defee kii bi noonu conférence yi bi ñu paree ba pare Dramé ak euh, Ousmane Cissé ak euh, directeur euh, kii maire pur bi directeur kii Mboub. Serigne Mboub directeur Sarr waaw directeur Sarr bi Serigne Mboub. bi ñu génnee di def déclaration de presse bi bi ñu génnee si nga moom mooy coordinatrice nationale. journaliste yi bi ñu ko bëggee jox micro yaa defa dañ leen déedéet du ma def interview Augustin Augustin moo war a wax parce que mooy coordinateur départemental mais loolu ak ba dafa ak noble la parce que loolu mooy discipline de parti. Mimi jël dafa diggé lu am solo mom boo ko si ñu affaire boo ko si coalition bi parce que lam mu waxoon moom ma ci nek parce que loolu tay mom bu ko neexoon mooy na solo euh, bu ko neexoon parce que loolu tey plateforme bi euh pour parrainage mo organiser su ko neexoon mën nako def Augustin ñëw ñu addu mo ñoy way ñom ñep ñoko dañ Augustin bi moy coordinateur départemental mo wara wax déggul leen Mimi tiri ba tay lu lama la toké sa table ji déggul leen ko fu waxé ci déclaration de presse bi kon loolu rafet la ñukay koy saluer di euh, madame la coordinatrice vraiment li la président jox wóolu la ak dëggu gi nga dëgg su ma yàlla nga ko réussir ak jàmm ak salaam 3 millions ak quelques ñu bëgg yàlla nañu ko am ak jàmm ak salaam mu génn. Ah, <clears throat> très bien alors mu mel ni euh, seen parti di APR wala boog seen coalition Benno Bokk Yaakaar.

di si remercier Lamine Ngom bi nga xamante ne bii concurrence am la woon pour euh, COJER bu ñu waxee li fi xam di si remercier ki nga xamante mooy coordonnateur département de Maïssa Diouf mm-hmm. di remercier ñoom équipe yi ñu àndal yéeg ñoom ñooñu ñoonu parce que ñooñu il faut solo tamit ah, parce que daje bi keroog la am permanence gëj na faa am responsable des valeurs ñi xam ñoo santoon affaire bi ñi xam ñoo daan tiirante ku mel ne Abdou Diouf ñu koy sant bu baax di ko gërëm Touba tour ak ka nga xamanteni bi moy gien ma nga xamanteni mo dik Touba tour mom tim fofu rek lañ fi am ben problème te foofu après wax nañ leen ko woo Abdou wax ko woo nañ après après dañ def délégation dem Touba Toul jubóole leen parce que dem il faut la wax li nekk problème bi fofu rek mo xawa dess des parce que ñi nga xam am nañ gànt sax ku mel Abdou Diouf won indi na gàntu Gabriel Gabriel bu Touba Gabriel sa démission de démission bu Kër musso hmm. waaw mo waroon na ñew mo tam am na kon ñi nga xam ñëpp and nañ ci loolu waaw problème bi si am foofu rek foofu dinañ ko ànd lesades dinañ dem Toubatul dinañ def benn délégation ànd ñoom Assane dem def Toubatul ànd kii la ñu nekk benn euh, si euh, sagestion ah, a dooreel xale yi ñu ànd ñu liggéey di leen appel parce que ñoom ñi nga xam ñoo waroon a xeexal rayante xam nañ li ñu jëm ànd rek moo ñu si àndal pour jox président victoire and nañu ngon ko mag ñi ñoo ci dess nañ and di di remercier encore tim Augustin Tine encore ci li nga xam mobilisation nga xam def nako o oh, bi paysan den Tivaouane parce que tim nañ ko wax mo yor coordinateur départemental bi mais xam na li mu def dafa gën dem ba njóobeen bi nga xam ne si la bok mu def fa mobilisation bu réussir di ko féliciter di féliciter kim ki nga xamanteni bi moy chef de cabinet di secrétaire municipal ba di Martial Ndion parce que lolu dafa am solo contane nañ ci bu baaxa baax parce que lolu mom lu am solo la contane nañ ci baax di ko wax encore merci di wax tim ki nga xamanteni bi moy moom lañ bëgg mu jiite commune bi muy Siré Dia Siré Dia bi nga xamante ne bii. directeur général poste. directeur général poste. Mhm. Siré moom itam lenn rek lañ ko lañ bëgg mu def ko. mooy nañ ñëw osé toog si commune boo ñëpp loolu rek lañ ko sant na na def loolu parce que ñëpp li si gën a bari bokk parce que ñëpp ànd si moom am amul mais li gën a bari nee nañ ko ñëw yow yaa mën a jiite commune bi mais na ñëw na osé woote woo nit ñi. dajale nit ñu and su commune bi andé ñu defaat benen bu maga maga maga maga maga bo xamanteni bi département bi lay doon Augustin coordonné ko ñoom Mamadou Thiaw ñepp ñëpp ci ñu liggéey loolu lañuy wax parce que moment bi ñu nek ne c'est l'heure à sonner dama ni li and moy nañ and ñun ñepp liggéey moy yoon. alors euh, très bien li ni mel mu mel nii wax ko ko sànq euh, rek euh, ci taxawaay bi toujours ci élargir base APR est-ce que tay yeen fi ngeen toll yeen a ngi ci li ni mel. ñoo ngi si loolu mel na mel benn. foofu la lay wax ni foofu la ñoy sama waji ko ku melni ni Abdoulaye Dièye moo si liggéey liggéey bu am am solo parce que man def na fi ñaari sortie yo xamanteni comme lema ma la waxoon xaw ma Abdoulaye Dièye miin ba damaa gis ni bi liggéey rek ma wax mais Abdoulaye bi mu déggé lool mais dafa def déplacement dimanche ba lépp tey la dimanche dimanche bi passé mi nga won gent heure bi suma ma bu féké 14 h jotagul na nga won gent heure bi Abdoulaye Dakar la joggé dafa ma won ni ma ngi ni départ Dakar ma ngi ñew foofu la jëm fan la xamu sama kër de fan la toll fan la toll ci ngent man ko bo dikkee ba pharmacie bi digënté pharmacie ak jumaaji jaddal dugg mu dugg mu ñëw waaye la ko gën a neex mooy bi mu dikkee la nga fa fekk fekk na fa chef de quartier fekk na fa ay notable ñi nga xam ne ay major la ñu woon en armée ñi nga xam ne ay principaux la ñu woon ci ay ay ci ñoo nga fa woon ak i dame d'affaires yoo xamante ni bii ay responsable fu nekk dañu faa jël kenn rek ndax dimanche la heure boobu dafa mais loolu dañu ko manqué la waaye moom moo ñu ko ji ndax it mënoon na see bañ a fekk mënoon ne ni Ndiaye dani Ndiaye dinaa def déplacement Abdoulaye Diop gor la maa ngi door a xamante ne moom keroog laaj ma sa toog ak moom jotaay bu yàgg mu toog moo sunuy nit sunuy papa nga fa sunuy raga nga fa sunuy mag ñëpp toog ñoom déglu ko déglu leen ñu wax mu déglu ko may man Ablaye dama ko jokkoon na ko benn mais jàppoon na ko <laughs> waaw parce que gore na ñaar mi ngi liggéeyal président tam mi ngi koy yaatal yaatal gi mu ko yaatal tam mooy déplacement bi mu wax la la mu njëkk a wax tam dégg na la ko waa ngent ñam ña fa toogoon waxit chef de quartier bi itam nee na ko kii itam soo gisee mu wootee ñu ñëw fu ñu wootee ñu ñëw mooy moo fi dugalul kenn dugalul kenn mooy suñu école bi bi ñu amee problème mu. salle de classe bi nga xamante ni bii euh, euh, problème la woon moom ñu ko wax mu tabax ko si biir Omar Diop bi nga xamante ne bii moom laa nekkol mu loon muy directeur général bu SAR. Omar laa dem wax ko loolu mu jox ñu xaalis ñu jox leen mu jox leen da leen dama leen a woo sax ñu dem mu jox leen xaalis ñu tabax classe kon. kii fu mu ñëw dañuy wuy si chef de bi en tant que personne morale fa quartier bi is newul beneen bi si des itam mooy dégg na foofu den damay profité tontu Lamine Diallo ah monsieur le maire li muy wax nii ay 400 millions détaché na la 400 millions yëpp yi mu jaar waaye 100 millions yi mujjee laa bëgg mu xam fan la leer ndax ngent googu muy wax noonu école ngent bi ab benn classe boo xoon moom defu ko ko ñaar mooy problème kii ba douze yi ngent école bi dafa am problème douze nee na day séddale ne waxa waxa waxa waxa compétence yi. salaire yi quoi. waaw non non problème xas wax compétence yi rek laay man dafa ba ma soxla. Hmm. ay salaire yooyu moom dugguma si moom waaye neuf euh, euh, kii bi muy wax noonu net. sant euh, non non école yi école yi. lu mu la jox fourniture scolaire yi 8 8 8 millions 500 la. Hmm? nettoyage yi muy wax 2 millions 500 la waaye Lamine loolu lépp boo ko boolee 11 millions ak 10 millions ma déglu millions yi ana bi 100 millions fu mu jaar la jaar parce que école na problème mu douche tabaxal leen boo euh, bu la leeree ni bu seen seen ndox bu fekkee génn bu yàggul la te ñoom ñoo fay yaakaar naa si seen euh, comité de gestion bi ñoom ñoo fay ku leen gasal teen bi

parce que mooy li ma la wax maam Adama Gueye gi xam ne mun ñu am parrainage mun sénégalais yi wóoluwuñu leen duñ la mos saa bu ñu laajee leen parrainage yi morom du ma lim sax ndax groupe boobu dañoo bari mais maanaam jël initiative tontu rek moom nga xam te bii mun sénégal bi ko jox parrainage bi jox dara si la ñuy bëgg a bëri doo wuti rajo topp journaliste topp la ñuy ñuy dekkee wax fan li ñu wax teguñu ko na leer ça son ko créé fusée viable na amoon ña fa demoon am nañ fay représentant point ay tiré bu ñu leen woowee état du xaar kenn fi mu ne fise bi APR e ak réew mi ak PDS si yem ministère de l' intérieur état la fa toggal gouvernement la joxu ko kenn jox ko waa APR e jox ko kenn na leer fekk nekkoo candidat duñu la ko na leer. très bien Mamadou lay tàggatoo di sant bu baax di la eh, sant yéen waa Thiès FM yéen di di leen ndokkal dem si ndax li nga xam match amoon na fi démb gis naa ngeen fi douze mille vues yoo xam te ne bii loolu la lecteurs yoo xam te ne bii li ma la waxoon rek mhm. moom fait la différence mhm. waaw loolu loolu moom loolu leen mérito mhm. euh, te yeneen a ngi ñëw te xam naa ne itam euh, Thiès Info moom wax dëgg yàlla daal mi ngi fi parce que man yu bari itam xam nga temps amul visite du président bi yu bari yoo man Thiès Info daal man lay consulter dugg xool la fi xew di leen remercier di leen féliciter bu baax Euh, ndokkeel tim euh, le président président groupe bi muy Sidna Omar Omar Sey mhm. di ko nuyu ziare baax mook di nuyu tim ki nga xam te ne mooy sa caméraman bi nga xam ne toujours yàlla dañuy boole muy Adama Ndiaye mhm. moom it di leen sant daal di leen ndokkal si gàmm gi nga xam te ne bi moom la nekk mhm. di leen wax daal wa kullu aamin wa kunna xayrin ndax duma nit du fàtte boppam <laughs> wa kullu aamin wa kunna xayrin wasalaatu wasalaamu ala na yàlla saxal jàmm ci réew mi macha allah Mamadou Ndiaye nekk rek analyste politique bokk Yaakaar alors euh, li ni mel euh, wax na ko ci njeexitalu waxam muy 12000 euh, lecteurs yi nga xamante ne rek ñoom ñoo abonné ñoom ñoo suivre match Sénégal bi nga xamante ne rek moo doon am direct mu nekk nag ay innovation yoo xamante ne du guléet ci Thiès Info ndaxte site bu njëkk la ci biir Thiès mu def 10 ans mu nekk site d'information générale bi nga xamante ne bokk na ci site bi nga xam ne moo njëkk def ay émission télévisées euh, di ko euh, jàllale di ko diffuser euh, rek ci Thiès Info ak Thiès TV ak YouTube lu ni mel mu nekk ay innovation yoo xamante ne fii ci Thiès la doore waaye nag Thiès Info ak Marseille Latir ak équipe bi nga xamante ne rek ñoom ñoo nekk ci ginnaaw eh, tey ñoom ñoo taxawee taxawaay bi ni mel ci biir Thiès lépp nag dañ koy eh, jaarale ci yoon ba tax na lépp loo xamante ne dafa làmbawul yoon rek Thiès Info kenn du ko ci gis kenn du ko ci dégg ndaxte nit da nga war a tënku ci yoon kuy dem dañoo ne rek eh, da ngay woor da ngay xool yoon wu jub pour nga teel a yegg waaye nag yoon wu dëng boo ca jaaree mën ngaa tasek ay samba boy te samba ku ñu taseel dañ lay boom li dañ koy jox rek mu nekk ab yóbbal boo xamante ne ku ñi nga xamante ne ñoo nekk ci biir dëkk bi di jubal ñoom bokkuñu ji waaye ñi ngi nekk ñi nga xam ne dañoo nekk ci biir dëkk bi di dëngal ñoom ñoom moom jooju wax wax jooju nag képp koo xamante ne rek gis nga sa bopp nanga fexe ba fóotaat sa bopp taxaw rek ngir euh, tegu ci yoonu jub ndaxte tamit euh, fi nga xamante ne rek moom mooy dëkk bi njub la ñuy xoolee euh, doomu aadama li ni mel nag ci la ñuy tàggatoowee rek di leen jóg di daje ci beneen numéro incha allah